ñuy gis gore nageurs yi di préparé wu ngir di fay ñoom nag ñu ngi tollu ci 650 nageurs ku nekk jóge fu nekk ñu gis ci tamit âge yëpp ci 34e bu Dakar gore ñuy fay di dem ci gore muy dëkk waay bu histoire laal nekk ci diggu géej gi fii nag daanaka teextu gi am pecc la ci noonu ci la ki nga xamante ni mooy premier ci compétition bi ñëw jàll li di liñ finale bi kontaan naa trop parce que xamoon naa ni euh, lii dina ma arrivé parce que dama entraîné sacrifié sama sacrifié lu bëre jigéen yi tamit traversée bi yombul woon dara ñu gis ci mbégte. on va continuer à s'entraîner pour fédération sénégalaise bu natation ak ñi nga xamante ni ñooy kilifa yu organise mbir mi ñoom nee nañu leen lañ ci xaar. au Sénégal Sénégal ñun waruñu am problème mu ay fekkat ndaxte am nañu géej ba noppi eh, ki nga xamante ni mooy suñu marraine moom joxe na signal fort. leneen loo xamante ni mën na tee ndaw ñi fii ci Sénégal ñu bañ a dem Tugal. pensons que dañu war a ñaax ndaw ñi ñu am ay maîtres nageurs bu baax a baax bu ko defee ñu mën a dissuader bépp ndaw boo xamante ni dafa bëgg a dem Europe euh, naan dafay tukki. comme gore nu mu koy defee saa yu nekk traversée bi nekk rendez bu mag a mag ci natation bu Sénégal. c'est notre élément on la dominer encore davantage. comme thème bi ñu ni fay ñëpp la mën a boole wante tamit ñëpp la mën a sonal.